jàmm ci sax dak leen leen ñaanal mbokk Sénégal rawatina suñu mbokk internet mourid info dal leen ak jàmm ci seen rubrique journal de la semaine. ci xibaar yi son excellence monsieur Macky Sall di président d'Afrique bu Sénégal ñëw na ni ki dimanche 19 août 2018 seet si nga xam moy mooy général de Mourides Tabaski 2018 njënd ak njaay ci walum xari ak yu ni mel euh, sen site d'internet bi di mourid info. dem na euh, seeti wàllu daral gi. éducation Serigne Mame Bara Mbacké euh, def na acte bu am solo ci wàllu éducation ci ndigal li nga xam ne Serigne ba si joxe na ko ci wàllu njàng ak njàngale sëñ Mame Bara équipé na li nga xam ne mooy bureau bi nga xam ne jox nañ leen ko foofale ca héliport wàllu politique transhumance di jóge ci parti dem ci beneen parti nga xam ne mooy Medoune Diouf jóge na ci parti euh, bi nga xam ne mooy Teranga Sénégal bu docteur Abdoulaye Niane dem ci APR ginnaaw Mame Khary Mbacké Euh, visite du ministre du commerce mi nga xamné mom mo ñëwon ci Touba seet si waa di kurel nga xamné ñom ñoy ñooy saytu lépp lu jëm ci walu diwlin euh, diwlinu gerté yi ñëw na fi seet si unité unité de production yu am am solo. ni ñu ko waxee woon ci son excellence maître Macky Sall du président de la république du euh, Sénégal ñëwoon na fii si Touba euh, seet si euh, Serigne Mountakha Al Bassir mi nga xam général des Mourides ñu ànd teewlu élément bi. ëmi waxtu lan ko annoncé woon ci Touba njiitu réew mi président Macky Sall mi ngi mujj agsi bi 18 jotee ci pencum Daaru Minam kër xalif général des Mourides Serigne Mountakha dalal ko ay simili laata kilifa gi di xalif bi di delluwaat ci kër Serigne Touba bi nekk ci jumaa ji ngir nag wéyal ziar yi nga xamante ni jamono ji wàccaayu tabaski bi yeneen ci ay kilifa ñu ngi koy amal jiitu réew mi diir bi mu nekk ci kër Serigne Mountakha Mbacké ci ay xibaar yi nu jot ñu ni recevoir na fa ay kilifa yu si mel ni Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké porte-parole du xalif général des des Mourides soxna Bali Mbacke Muntaxa ak ñeneen ak ñeneen visite bi nag jàpp nañ si amul woon lenn politique si yenn si xibaar ñu ni kat njiitu réew mi dafa ñëwoon rek ngir ziar si xalif bi waaye ñi nga xamante ni ñooy militant yeeg responsable yi bi ñu ko déggee ñoom ñëpp nag ñëw nañu si kër Serigne Muntaxa di fay xaar seen chef de parti loola waral bi président génnee mu jël kat ñaari million jébbal leen ko. Di 2018 njënd ak njaay marché bi yi nga xamné moy population bi joy yi joy ci walu xaar yi ak yu ni mel seen site internet bi di Mouride Info itam dem na ci dar lu Touba ak suñu rapport suñu reporter bi nga xam moy Ndey Ndeye Saliw talal na micro ñu bari ñu and seetaan élément bi. nak xar yi moom bari nañ fu wax deug yalla sour nañ it yomb nañ képp ku bépp kep client bu dugg ci marché bi bol bol bol bol kenn xamut. koo xam bu la toppee arrêté ko eggal ci xar mi ngay jënd waxaale ba juboo sooy joxee sa xaalis it joxal borom xar mi. li nga xam daal moo ñu naqari ci daral gii xëy na am na sécurité nag waaye njaay moo xam ne mi loo nar a keneen di yàq ko daal moo fi moo fi moo fi moo fi moo fi ki yorul xar yorul xaalis waxaale fekk kuy waxaale mu dikk yàq ko daal moo ñu naqari. ñan ñi nga xamanteni ci ñoo ñew di yàq seen prix wala ñu ñew di yàq li nga xamanteni ci mom ngeen liggéey fi ci daral gi am ba gaay bari na fi gone yo xam yele ñom lay ñu xar jaayu ñu ñum xar dañu ñew fi rek dik fekk yow nga am sa client di waxale am xarab mu na dik dik japp ci lamb fi lamb fi ne la xar mi ëmb wala mu na xar mi xar eh, mi dafa dafa bejeen be dafa dam wala xar mi sikkal ko daal fii daralu ndindi la ñun ñëpp ñi fi nek ñëpp fi liggéey fi liggéey waye courant amuñu ko courant liñ mangi ci la bokk amuñu courant jàpp nañ ne nag waroon nañoo mën a am courant ci réew mi ndax courant bi ci réew mi ci lañ bokk. ñun daal li ñu a nekk suñ problème mooy problème courant lamp yi mooy suñ problème bu événement ñëwee tabaski deux jours trois jours ñu coupé màggal deux jours trois jours ñu coupé. est-ce que loolu noonu mën leen ci dox am ñaxtu maanaam ba gis seen bopp daal ci problème courant bi. loolu li li ci mënoon a dox mooy zeefu daral bi mooy njiit li moo waroon a jiit lépp waaye du régler dara. li daral gi rëy rëy ñaari lampa fi tàkk mbaa benn te buy jub tabaski lañ koy taal bu jàllee ñu fay ko buy jub màggal ñu taal ko bu jàllee ñu fay ko. éducation Serigne Mame Bara Mbacké euh, def na acte bu am solo ci wàllu éducation ci ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou joxe na ko ci wàllu njàng ak njàngale Serigne Mame Bara équipé na li nga xam ne mooy bureau bi nga xam ne jox nañ leen ko foofale ca héliport fexe ba gën leeral ak yaatal njàngaleem ko tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim rawatina lu jëm ci am mbindam loolu nag bokk ci bëgg-bëgg yi nga xamante ne bii mun Mountakha Mbacké am na ko ci liggéey bi nga xamante ne bii mi ngi koy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim lu ni mel nag gannaaw bi mu ko dénkee Serigne Abdou Samad Mbacké ibnu Serigne Souhaïbou Mbacké mu def ci taxawaay bu am solo taxawal kuréel gu am solo goo xamante ne bii kenn ku ci nekk boroom xam la am yéene lool ci liggéeyal Serigne Touba kuréel googu nag gannaaw bi ñu ko taxawalee ñu am ay xalaat yu am solo bokk na ci gën a yaatal njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim ci ay fànn yu wuute rawatina lu ci mel ne ay documentaire waaye liggéey bu ni mel na kenn mënu koo taxawal te jëloo matuwaay yi nga xamante ne bii war nga koo jël rawatina lu jëm ci ay jumtuwaay Serigne Maam Baara Mbàkke moom Serigne Moustapha mu Serigne Abdou Aziz moom Cheikh Modou Lamine Baara am taxawaay bu am solo boo xamante ne bii def na ko ci jéego yu ni mel. sante bokk yi bu baax a baax ak sama yëpp yéene ji ñu am ci liggéeyal sëriñ bi ak nangu gi eh, yàlla na sëriñ bi boole gàttandu ba li mu bëgg li ñu liggéeyal ko ko ñu defee ko ni mu ko bëggee eh, ci gannaaw ndigalu Cheikh Mouhamadul taxa ak yéene jure jëm ci am ci liggéeyal xam-xam te soññ ñu ci liggéey bii ma ànd ko kuréel bii ànd ko samay bokk ak taalib yëpp jëf jii ci suñ maam Baara def day lu rëy rëy ci noonu bett na ma waaye bettu ma bett na ma ndax li mu waxoon defe na lu ko ëpp. waaye jëf jëf ju baax yi du ma bett ci moom ndax loolu laa xamoon ci moom kon nag maa ngi koy seeral bi yëpp keroog bi ma ñu waxee ne sëñ bi joxe na ndigal kër sëñ tubaaga ga ca héliport nañ ñu fa jox barab boo xam ne dañ koy jàppe bureau liggéeykat yi dem sanc ko man faa toog dafa liggéey li jëm ci téere bi nga xam ne moom dañ koy jagoo féetewu foofa loola nag am na yum laaj ci ay jumtuwaay yoo xam ne ku toog ci bureau di ci liggéey mënoo koo ñàkk yooyu dama ne lépp man la war ndax lu ma lu ma jaayante woon rek sëriñ bi la waaye moom mi mu daal di jóg ne loolu moom bàyyi mu féetiwoo ko waaye lañ ko la la waxoon sax ne moom la cee def def na lu ko ëpp fuuf loolu moo tax ma ne ko bett nga ma waaye bettoo euh, loolu nag sëñ Tuubaa mi tax mu di ko def sëñ moom ñi mu wut bor dafa am pay kon nag sëñ baa ngoog yaa ngoog rek Euh, politique wàllu transhumance aussi euh, ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ci bopp xibaar yi nga xam ne mooy Meroune Diouf jugee na ci parti bi di euh, Teranga Sénégal dem ci APR ci ginnaaw Mame Khary Mbacké. yaakaar naa ne tey sama devoir mooy fu ma mënti nekk ci politique ñi ma àndal nañ ci gis seen bopp nuñ ci gis seen bopp mooy nekkul ne Medoune mooy dem lijjanti ko fee ñëw di dund njabootam. lolu amu ma conviction bobu li ame am moy suñu ma amé fuk ma fexé bo juroom benn ci neñ ci man ñent yi dem ci ñu may andal te japp na na tay mam xari Mbacke mi nga xamné tay mom mo waral ndaje euh mam xari mom señ murtala mo waral ndaje mi wonama kep ma kuma xam ci mbirum yoonu señ Touba gi nga xamné sama buntu ci señ Touba señ murtala Mbacke ndax man señ Bass mom señ murtala mo sama sëñ tay mam xari mom señ murtala ba loxo ba ci vingt mille femmes yi nga xam ne tey jii moo ko koy employé ci soci euh, entreprise am boobu ñuy wax Rasiat te tey mu xamal ma ne tey soo ñëwee ànd ak man dinaa jàppale sa jigéen ñi. ñu ne déedéet waaye moom ñëwagul gisagul base bi xamul base bi ni mu mel ñoom ñi yëpp mën mot nañ ma témoin yaakaar naa li mu fi dugal du lu ñuy tudd ci presse mais yaakaar naa ne ñoom ñëpp mën nañ ma mottu seede amul benn leader politique bu ma mës a àndal mu yëkkati lu toll noonu jox ko ci jigéen ñi leneen la ca nag suba ku ma gis kër bàcc mu la jaaxal ku ma gis kër bàcc bu mu la jaaxal su ma jógee fi avant may dugg ci kër gi sama téléphone dina sonné moom moo doon woo di ma nemmee kon seq nañ ay relation yoo xam ne daray àdduna ko ko yàlla man noonu laa jox. moom mooy euh, yore li nga xam ne mooy euh, ministre du commerce di ministère bi nga xam ne mooy yore wàllu njënd ak njaay ñëw na fii ci Touba seetaan euh, seet si kuréel gi nga xam ne moom la ñuy wax Rasiat Rasiat nag mooy kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu aju ci wàllum diwlin ñi xolli gerte gi di ko segal ak lu ni lu demee ministre bi nag ñëw na fii fi Touba visité na ay béréb yu bëree bëree bëri yu fasantikoo. maa ngi dalal jàmm tey fii ci Touba monsieur le ministre du commerce ak directeur général Sonacos gouverneur préfet euh, sous-préfet et monsieur le maire de la ville di am a bu baax tey ci visite bii monsieur le ministre di visite bu am solo ñun dañu am kontante ci partenariat bi nga xam ne moo dox diggante Rasiaat ak Sonacos euh, partenariat boobu dafa jóge ci xalaatu président de la république monsieur Macky Sall bi mu ko xalaatee mu ko ci premier ministre premier ministre jël dossier bi tegaat ko ci sa loxo ministère du commerce nga pilote dossier bi pilotement bu rafet ndax comme ni nga ko waxee sànq rek euh, projet bi plateforme bi euh, ci début bi amna ño nga xamante ne gëmuñ ko won mais yow euh, da nga da nga patriote da nga bëgg sa réew bëgg gog nga bëgg sa réew ak xam gi nga xamné chaîne de valeur bi bu nu ko valoriser mën na indi développement ak kom kom bu am njariñ ci biir réew mi motax da nga ko mës a gëm taxaw ci taxaway bu rafet ci diggante Rasiaat ak Sonacos diggante Sonacos ak commerçant yi. réew industrie moo koy développé. mais réew bu fekkee ne secteur industriel am bi dafa xawa faible wala bari wuñ ay emploi réew mi day yali commencer commencé naxas réew du basé wu ci commerce réew day basé wu ci industrie ñu ciy profiter nak di sante sunu mbokk commerçant yi moy wa inaqua ñom ñi nga xam ne signé nañ ci plateforme bi té à chaque fois bu ñu woté rek ñom dañuy wax ne dañu and ci plateforme bi paré nañ pour lepp lu Sonacos raffiné ñu jënd ko pour mettre sur le marché local donc dal monsieur le ministre ñong lay sante encore une fois di la ñaanal euh, liggéey bi nga tàmbali nga égalé ko ci jamm ñu dem ba nga xam ndax réew mi yépp xam nañ ne lii mooy développer réew mi donc ñoo ngi la siy ñaanal di sant directeur général Sonacos Pape Dieng bu mbokki internetu Mourides info fii lañ leen yemaleen ci xibaar de la semaine ñu ngi leen jox rendez-vous dimanche prochain incha allah